waay ni man bu ma doon oto tuubaalaay miite sama matricule mooy jërëjëfe sëriñ saaliw ee eh, ay waay man bu ma doon garab fa sëriñ saali woo lanu may jëmbët ndax ma dend ak xay ga ee eh, ay waay man bu ma doon kafe fa kër sëriñ saali woo lan may defare ndax muridi naan ca waay ee eh, ay waay man bu ma doon dugub Eh, nanu ma ji fa xel koom ma sax fa màgg fa ndax murid yi góob ko ee eh, ay waayi su ma doon gerte it nanu ma ji fa xel koom ma fa màgg fa ndax murid yi bàcc ko ee ay waayi su ma doon gerte it nanu ji fa xel koom ma fa màgg fa ndax murid yi bàcc ko waay ku dégg rek sama way wi xam ni maa am cofeel ci sunub sëriñ sëriñ saaliwoo dinaa la waye ne indil ndënd indi xalamit indil ma guitare basse ndax sëriñ saaliwoo dinaa la waye ne lu ma mën a am lu ma mën a xam way sëriñ saaliwoo moo ma ko gënal sëriñ saaliwoo dinaa la waye nu ne xatul xatul buñ ko xatal kii dafa yaatu lool ku mën a way kaay ñu way ko nde jar na ko kii bu xatoon man duma ci way kaneen du way ci moom kon ña jiitu jeexal ko nde way nañu te ñoo ngi nii man di ci way te bu ma jeexalee ba keneen di way ci moom yàlla na xol bi nangu nag ma defal man su booba te nag ma boolewaat ca ña lay jàppaleel sa waykat ya ngir ñu dem jërëjëf waaw mbokk internet univers info TV ak wasaare info TV aussi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax comme ni ngeen ko gisee ñu ngi fii ci toolu xelkom yi édition 2021 ci wàllum euh, li jëm ci mbàcc meek dajale jeeg yu ni mel donc ñu ñëwoon fii taataanal leen li nga xamante ni moom moo fiy tukkee ci li ci information ak ci euh, li nga xamante ni fi la liggéey bi toll donc gis ngeen ma ngi avancé bàcc nañ gaa ngi dajale ñi nga xamante ni ñu ngi séparé gerte geeg yu ni mel waaye ñu fekk fi ay soxna ak ay mbokki taalibe yoo xamante ni faaw ñu daal di jël li nga xamante ni moom mooy seen réaction délégation ngir ñu wax ñu lan moo leen tax a jógee seen ay màkkaan seen ay daluwaay ñëw Xelkom ngir liggéeyal Serigne Saliou am na ci benn soxna boo xamante ni euh, maa ngi koy seen donc euh, dama koy dama koy siyaar salaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi lay siyaar. waa delloo ziar sax. tur bi naka la. Soxna Khady Fall. Soxna Khady fan nga ñu ngi jógee ba Géejawaay nag egg si fii. waaw Géejawaay da lañ jógee ñëw rek pour liggéeyal sëñ bi. xam nga sëñ bi moom amuñu fayam ñun moom moo ñu dimbali moo tax waaw ñu ñëw fii di ko di sant di gërëm rek. ci naka la la sëñ bi dimbale. waaw sëñ bi dimbale na ma fu bare fekk na ma fu bare bare waaw dimbali na ma waaw. waaw ah, tolof tolof yi bari woon na woon naa ko mu wuyu si ma waaw dimbale na ma daal. bu ñëwee gis àll bi ni mu mel ah, amul kër amul amul dara. non dama yéemu ah. dama ñëw sant Serigne Saliou ba pare toog di jooy ma ne lu toll nii nan la ko nit benn nit mën a yoree gere ko. liggéey bi moom dañ koo def noonu rek daf ñoo bëgg a dimbali waaye du suñu mën-mën du suñu pas-pas waaw lii jéggi na xel daal jéggi na xel moom waaw sant nañ lool sax waaw. nga tool bi ay ndool ay ndaw rek ci ñoo ci ñoo ci nekk daanaka. mu mel ni mu mel ni. daanaka mag ñi bëriwul moom soo xoolee dañ ne jox leen man ndaw ñi ma def ci ñoom la sëñ bu mag bi daan def ci mag ñi doon yelloo ma ko nag waaye dama koy barkeeloo waaw ñun looloo tax foofu lañ toll fi mu ne nii ñu sëñ bi dañoo dimbali waaw. Euh, ban fondation nga bokk wala ban daara nga bokk. ñun fondation Serigne Saliou bi nekk parcelle. waaw fa lañ bokk. ok ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la bàyyi nga dellu ci waaw man tey maa ngi lay jaajëfal bu wér. Uh-huh. waaw kay jërëjëfati waay. dégg ngeen soxna si ndeysaan kàddu yi nga xam ni yëkkati na ko ci diggam ak Serigne Saliou Mbacké euh, mu doon lu lu lu lu yéeme lu yéeme loo xamante ni euh, koo ko wax rek euh, mu mu dar gémmiñam comme ni nga ko waxee gis ngeen li nga xamante ni foofu la ni la àll bi toll ak mbooloo mi niñ fi nekkee ngir liggéeyal ki nga xamante ni mooy Serigne Saliou Mbacké ci toolam yi sëñ bi maa ngi lay char waaw ñu ngi delloo ziar micro bi rek ñu wax. waaw sant sëñ Touba rek. Uh-huh. yow fan nga jógee ñëw fii. ñun ñu ngi jógee Dakar lañ jógee Marsa Sam Géejawaay. Uh-huh. waaw. d' accord yow uh, sa sa digganteeg Serigne Saliou est ce que mën nga si ñëw. waaw sama digganteeg sëñ Saliou moom mënuma ci wax ndax sëñ Saliou moom ñëpp la defal. waaw ndax dañu am fierté te maanaam tey pour ñëw xel kom ndax bii mooy c'est la première fois ñu ñëw xel kom dañ ko dégg rek mais tey dañ leen jaayanteeg suñu bakkan nu ñu mën def ñu ñëw xel kom mm-hmm. ndax sëñ Saliou yaral nañu ëpp loolu. da ñaan ak mbégte daal bu baax baax kontaan bu baax a baax daal. di ñaan ñëw xel ko naka la waaw sant rek taw feexal moom dëgg fa yàlla ndax amuñu benn jafe yoon yi egg si nañ jàmm naroon nañ jàmm yeewu nañ ci jàmm di liggéey Serigne Saliou di ñaan daal ñu fekk ko ay ati at mu doon li ñun di sant bu baax nag waaw di ñaan sëñ Cheikh Saliou mu yàgg fi loolu te mu ànd ak ñaan xalifa général sëñ Mountakha Bassirou Mbacké yàlla bàyyi ko fi mu ànd ak wér ba mboolem kilifa diine yëpp di ko ñaanal sëñ Bass Abdou Khadir di ko naan ñëpp daal wax dëgg fa yàlla kontaan bu baax a baax moom am nañ xol bu sedd daal waaw. gis bi ni mu toll. waaw àll bi ni mu moom kenn mën kenn kenn mënu koo xayma ndax lii kenn mësu koo gis. kenn mënu ko gis daal wax dëgg fa yàlla moom ambiance bi xel kom bi gars yi bi maanaam kenn mënu ko wax lii daal kenn ku ku mu ku nekk lii soññu na la pour ëllëg waaw dina tax bu déwénee ñu gën ko préparé ndax lii yéen nañu ci lu bare bëri dina tax bu déwénee bu gars yi ñu den fagaruwaay lu bëree bëree waaw di sant bu baax nag yéen di leen gërëm di ñaan yàlla yaa rafetal seen liggéey mhm. ci bàq sëñ Touba di ko teew ay déwén déwén ci bàq sëñ Saliou Mbacke ak saa kontaan nañ jaajëf jaajëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax jëwrin waa dañuy changer champ dañuy changer champ waaw donc jëwrin yow it euh, ñu fekk la fii nga xamante ne moom mooy toolu Xelcom yi euh, nga ñëwoon ci jaayante 2021 bi ñu bëggoon rek nga présenté u wax ñu fi nga jógee waaw sëñ bi ñu ngi lay siyaare ba jërëjëf sa wàccuwaay di la ñaan nga am jàmm taw fii ñu nga jógee Guédiawaye marché Sam lañ jógee waaw vraiment wax di yàlla di sant yàlla bu baax di sunu daanaka deux mille new na fi deux mille quatre deux mille cinq deux mille six ba ane bi ñu ñëwaat ren di ñaan yàlla na di ko fekk ci bar Serigne Saliou Serigne Saliou moom kii mënu koo fay wax dëgg yàlla waaw ndax moo ñu defar lu bari daal moo ko def ci nun wax dëgg yàlla daal yàlla na ko yàlla sunu borom taf ci sunu bare taf ko ci barkeem daal. di ko ñaanal xalifa bi toog yàlla yàgg fi lu ànd ak wér ci bar Serigne Saliou di ñaanal di ñaanal ñëpp. waaw ñëpp daal ku ñëw ku ñëw daal kilifa dina yëpp dina ñaanal ñoom ñëpp ñu am wér am jàmm salaam lépp waaw ndax Serigne Saliou moom wax dëgg yàlla bul koy wax suñuy xol dee tee ci moom dëgg yàlla daal di ko ñaanal daal yàlla daal def ci moom lu bëree bëri daal. amiin jërëjëf Ba Serigne Saliou. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax donc dañuy dugg rek ci euh, àll bi. xool rek euh, li nga xamante ni fii la liggéey bi toll ndax daanaka ma ngi avancé mbooloo mi sot fa kër sëriñ Saaliwoo la nu may jëmbët ndax ma dend ak xay gawaay ee ay waay man bu ma doon kafe fa kër sëriñ Saaliwoo lan may defaree ndax muri di naan cawaay ee eh, ay man bu ma doon dugub nanu ma ji fa xel koom ma sax fa màgg fa ndax murid yi góob ko waayi bisimilah barkeb Serigne Saliou Mbacke salaamaaleykum mbokk internet Wassare TV ak Univers foo ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen dalal jam seen chaîne préférée te nag ñu ngi fi nga xamante ni mooy àllu Xelcom édition 2021 ci li nga xamante ni moo jëm ci wàllum gerte meeg yu ni ñu ñëw ànd fekk ñi nga xamante ni ñooy waa fondation Sopp Serigne Saliou di ay ndaw yoo xamante ni macha allah ay jàmbaar lañ di bay seen waar ci liggéey bi nga xamante ni moom la fi Serigne Saliou Mbacke bàyyi ñu taxaw ceeg ki nga xamante ni mooy jëwrin bi yor wàllum organisation waaye bala ñu see dañ koy bàyyi mu nuyoo ak yéen daal di présenté wu ñu soog di dugg ci li nga xam ne moom mooy waxtaan bi jëwriñ maa ngi lay siyaar. waaw delloo ziar bi yaaram ngi ziar mbokk taalibe bi mhm. ci néew bi ak ziar bi. jëwriñ liggéey bi di Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Saliou di ñaan mu yàgg fi loolu tànd ak wér. Mhm. def noonu di nuyu suñu jëwriñ. Mhm. jëwriñ Ibulaay nekk ba bitim réew di ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te ay mébétam lépp mu àggale ko ci yéene Serigne Saliou barke Cheikhul Khadim. amiin tur euh, ñu ngi koy faral di wax nag borom beral. jëriñ organisation fondation Soppe Serigne Saliou. xeebu lool motewu ma ko nag waaye Serigne bi ñu ciy dimbali saa ne. ba liñ ciy bëgg donte duñ am luñ bëgg it ñu sant bu baax daal. macha allah est que mën nga ñoo ñëwal tuuti rek ci li nga xamante ni moo jëm ci wàllum organisation bi ci euh, mbàccum gerte édition 2021 fii ci Xelkom. waaw macha allah ñu koy taarikal la ci mbokki taalibe yi tamit dañuy njëkke sax parce que lii rek daa yombul. ab àll bu mel nii nga indi fa ay nit yoo xam ne sax amaana am na ci ñu bari ñoo xam ne ñu ngi fiy doog a ñëw di leen masaw coono yooyu bu baax a baax waaye ay coono baaneex la waaw àll moom mi ngi nii mbàcc mi moom mi ngi nii moom yaatu na moom liggéeyal Serigne Saliou képp ko na ñor fu mu ñu woo danañ ko fa fekk ak lu mu ñu fa def loo danañ ko fa def ci kat ni yàlla ak mbaaxam. Hmm. ñaata bus ngeen dep ngeen déployé ren. waaw ah, bii moom takku na loolu macha allah surtout côté Ndakaaru waaw ah, côté Ndakaaroo takk na fa lool macha allah waaw takk na fa lool waaw am na biis yu bëri yu daal biis yi daal takk na lool macha allah waaw. ak waa Gambie yi. waa Gambie yi ñëw nañ am na ñu jugee Ziguinchor tamit waa Kidira tamit am na ñu fi ñëw waaw ñun ñëpp moom ba ci Mali. am na ñoo xam ne bàyyi ko nañ fa ngir liggéey bi. mais ñi nga xam ne dañuy ñëw yëpp ànd ak waa fondation bi Jean ndax dañuy euh, dañuy bokk ci fondation bi forcément wala bu yenn événement yi amee daf ci am ñoo xamante ne dañ ciy bokk te bokk ci waaw fondation bi moom daa woote rek comme ni ko ñëpp di woote rek def ay avis di ci def lépp li ci war lépp ñu def ko Euh, am na ci ñoo xam ne wuyu si na la xam ne ñëpp ci fondation bi lañ bokk waaye tamit am na ci ñoo xam ne ci yeneen i gox lañ jógee yoo xam ne bokkul ci fondation soppee Serigne Saliou waaye bëgg moo tax buñ ko déggee rek dañuy ñëw moo tax chaque année booy ñëw di nga indaale ay nit yoo xam ne xëy c'est la première fois ñu fi ñëw wala euh, ñëw gin fi ñëw sax xamuñu sax fi fondation bi ndax da ngay gis des fois nit day bëgg a dem xel koom rek daana gis oto taxaw mu ne fu mu jëm xel ko mu dugg ko topp ko boo defee nag fu bii si jàdd rek moom day jàpp ci ñooñu topp ca ba ca dal ba mu daal di toog eh, ca lay ñëwee di xool liggéey bi di tamit mu daal di adopté ci biir daal di dugg ci biir fondation bi soppe seen jaadu daanaka noonu lépp ay jaaruwaay la yoo xam ne mën nga ne chaque jour boo jógee ci xel ko wala nga jógee ci benn événement dina bari lool mbooloo mi ji tàbbi ngir lan dañuy seen mbooloo mi ni rek ñu neex li rek ñu ñëw ànd ak ñoom ngir liggéeyal Serigne Saliou ngir liggéeyal Serigne Saliou sànq yow yaa ko wax àll bu toll nii ngeen amul ndox amul dara donc naka ngeen organiser woo ba war fee mën a dund ay fan te yooyu yëpp ngeen koy soxla naka ngeen di organiser ak budget bi ci ñaata la toll. waaw loolu de tawfeex la moom ndax sëriñ bi moom daanaka bëggal rek tam pas li ci des lépp moo koy matale te borom daa def tamit bëgg nañ yaakaan yaakaar def nañ fi ñaari fan. ci mbirum baas yeeg yu mel noonu nekk fi di baas benn baas ba baas yi féete ñu daal di mbokk saa bi war nañoo mën a am lu leer. ci lañ lijjanti ñu fexe ba courant bi yegsi fi daanaka am nañ groupe boo xam ne day tàkk daanaka guddi gi yëpp ba nit ñi leen soxla ci leeraay dinañ ko am donte buñ ko amul it buñ amul leen soxla lépp it danañ ci am lu bëree bëri bëri ci wàllum budget bi moom moom daanaka daal xew gi daal xamaguñ nun toll ndax ñi ngi jëf te noppeeguñ kon mënaguñ ñi temps lañ ci def waaw budget bi moom mu dëgg yàlla mënaguñ ci leeral dara ndax ñi ngi def te noppi moom nañ nañ kii noonu rek loolu moom daanaka moom waaye léegi. membre bu nekk ci. wàllum euh, barkeelu waaw ay jaayante la rek. soo tàmbalee 1000 francs ba lu waay am am na ñu ko def am na ñu duñu ko def lu ëpp waaw jaayante yi moom daa dem ba am lu mu toll daf cee bari loo xam ne nag ñun moom organisation dañuy jox ni rek ñu def dañuy jox ni dem ne def nangam mën nañoo ñëw ci bis bi ba mu jàll xam ñaata lañ ci def waaw duñ xam ñaata lañ ci def. finance moom mooy xam ñu ne suñ pare daal di def dajale suñuy facture waaye jamono ji dajeegu li ñuy facture moo tax mënagu ñoo xam ñaata lañ ci def moo tax waaye dem bi ñuy ñëw ci yoon bi am na ñaari bus yoo xamante ni euh, xam naa ne jot nga koo yëg euh, dañoo am ay problème panne donc euh, ci yoon bi loolu aussi tamit taalibe yi wala boog membre yi am na suñu bari ñoo xamante ni loolu dañ ko fustiger yow loolu lan nga ci wax waaw loolu moom day ndogal suñu borom rek loolu rek lañ ko mën a jàppe ñoom nañ sant yàlla ba biis ba mu yemee ci paan ñu réparé ko ba dem ba ak si waat ba toog di ko nettali loolu sant yàlla la am na événement yoo am nit di jóg di dem mënul agg kon paas bu paan boobu muy paan loo war a sant yàlla la xam la lan na naroon a xew ci diggante boobu nga xam ni danga ko waroon toog lépp lu ne mënoon na cee xew suñu borom dimbali na nag ba nga paan ceeg yu mel noonu kon tawféex la daal sant la daal waaw. tawfeex la loolu am na solo donc ki nga xamante ni moom moo doon yëkkati kàddu yooyu mooy jëwriñ bi yor wàllum organisation ñu koy wax borom belal donc kàddu yi je pense que leer na am na ci lu bari loo xamante ni euh, nit ñi ngi seetaan bitim réew ak ci réew mi bëgg a aussi ci euh, fondation bi euh, yan yoon lañ war a mën a jaar pour bokk ci. waaw ah, fondation Sopé Sénégal macha allah ak fu nekk fi mu toll nii yaakaar naa demee ba taxaw si moom yaakaar naa ne fi mu desatul bokk na fi gën a sori jamono ji ci ñun. kon sax suñ da sax boo fa bëggee am na ñu fa nekk boo duggee ci page Instagram fondation Sope Serigne Saliou rek am na ndaw yi fa nekk yoo xam ne soo waxee ñoom rek ñoom ñoo yor wàllum loolu Twitter am na fa Facebook am na fa waaw ñooñu ñëpp yooyu yëpp ay jaaruwaay la yoo xam ne mën na cee jaare pour bokk. waaw macha allah ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la bàyyi nga dellu ci liggéey bi ñun xam naa ne ñu jéem a dugg ci tool yi rek parce que ni wane rek li nga xamante ni moom moo xew fii yëpp ci àllub xel comme ànd ko waa Univers Info TV ak waa Wasaare ñu ngi lay jaajëfal bu baax. ak saa jërëjëf jaajëf. salaamaaleykum jëwriñ maa ngi lay siyaar. waaw ñu ngi lay siyaar bu wér a wér. naka taw fii. waaw sant sëñ Tuubaa bu wér a wér. fan ngeen jógee ñëw ci xel. ñu ngi jógee Touba Yaraax waaw Touba sa Ndakaar waa fa lañ jogee ñëw fii waaw ñëw bar waaw ñëw barkeelu ngi siñ Saaliw rek ngi yitteel sëñ Saaliw jëfal sëñ Saaliw ndax lu ñu defal ñu ndaw ñi xamuñu ko waaw jomb nañ ko ko ñëw liggéeyal sëñ Saaliw lépp lu am ak lu man danoo ñëw fii danoo war a ñëw fii liggéeyal ko sëñ Saaliw waaw loolu doog lañ ko mën jukkal mën nga koo delloo waaw mën ñu koo fay kooku lu ñu defal ñu démb ak tey waaw suñu baay ak suñu ndey sax ko. Mm-hmm. waaw loolu la waaw. xel kom sa xel ci lan lay dem foo xamante ne foo sànni sa bët rek. foofu la tool yee di yem maanaam mënoo ko dajal. Euh, loolu Serigne Saliou Mbacké def ko fii tàggatal ndaw yi ba nga xamante ne bu ñu nee xel kom rek. Mm-hmm. sa xel day dem ci ndonga tarbiya yi sa xel tamit day dem ci taalibe Serigne Touba yëpp. Euh, loolu naka la lay def. Serigne Saliou mooy nekk koo xamante ni ndaw ndaw booy da nga koy ku jóg da nga koy bëgg am na yoo xam ne jëmm jëmmalante ak moom waaw sëñ Saliou mu def ci loolu loolu ci ndaw ñi ku ku ku judd rek da ngay bëgg sëñ Saliou ndax yërmaande bi amal ci doomu aadama yi te xam ne ku ne ki ma wax moo wax ni képp ku ku du yàlla suñu borom appo mu yërmaande si jaam kooku koo xam ne am na fu mu ndaw ñi waaw ko xam ne Saliou boo daan doon xale fi wetam day jooy boole ko ay ay ay tuub bi jégalu kooku kooku mun kooku xam ne bëgg na xale te bëgg na xam ñoom xam na seen avenir ëllëg ñoom dañoo ñoom dañoo jóg ngir liggéeyal sëñ bi waaw loolu loolu mën a jëfa sëñ Sall sëñ Sall amul leen lu ko mën a fayal lu ñëw si xel koom yi bu jëree bu bu nan sax baa ñu jëli ko ñun sëñ Sall jar nañ ko waaw loolu la jërëjëf xëyit euh, tool yi euh, doon na loo xamante ni am na ay baatin yu si ne euh, loolu lan nga ñu si mën a wax waaw fii moom ay mbóot ay mbóot dem bi dem bi ni ñëw rek li ma mën a mën a xel koom kenn kenn sëñ Saliou de nga fii li mu yaatu yaatu àll bi li mu yaatu yaatu waaw da ngay ñëw tëdd yoo yoo wi gën a ne doo ko gis waaw lépp lu luy lore doo ko gis waaw sa nafen sëñ Saalum sa nafen bi laa dara yéen la waaw kooku kooku li mu ëmb tool yi mu ëmb daal boo ñëwee fii sa tànk di métti sax boo ñëwee doxal bal ngaa ñu barke sëñ Tuubaa Mbàkke sëñ Saalum saafale ak borom ak borom tool yi billaa walaay waaw waaw ñu ngi tuub jéegul bu baax waaw indi soxla yàlla na ko suñu borom faj ko fi indi feebar yàlla waaw loolu de barke sëñ Tuubaa suñu borom jëpp na jëpp sëñ Saliou la ko def waaw lépp lu fi fàggu rek yàlla na ko sëñ bi defal ci barkib sëñ Saliou mën na ko am na ko yàlla lépp baawoon saawaan baawoon barkib sëñ Saliou jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf e, ay waay su ma doon gerte it nanu ma ji ma sax fa màgg fa ndax muri di bàccu ko waay ee it nanu ma ji fa xel koom masax fa màgg fa ndax murid yi bàcc ko waay ku dégg rek sama way wi xam ni maa am cofeel ci sunub sëriñ sëriñ saali woo dinaa la waye nu ne tey ñu ngi Xelcom gis ngeen li nga xamante ni moom mooy euh, liggéey bi fi mu toll ma ngi avancé bu baax euh, kenn doxalu ko lu dul euh, ndongo tarbiye ñi nga xamante ni ñoom ñooy taalibi Serigne Saliou yooyu ñëpp di ay ndaw ñu ñëw nag gis yeneen fondation yoo xamante ni bokk na ci fondation Serigne Saliou yi nga xamante ni fu ne la ñuy tukkee ci àddina ngir ñëw daal di liggéey ci liggéey Serigne Saliou bi ñu toog ak benn fondation d'abord ñu toog seeg benn jëwriñ dañ koy bàyyi mu nuyoog yéen daal di ñuy wax fondation ak turam ak lépp noo xamante ni rek war a mën a xam bala ñoo tàmbali li nga xamante ni moom mooy waxtaan bi jëriñ maa ngi lay ziar. delloo ziar salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay. Mm-hmm. di jiital suñu bekk ziar yi sëriñ Mouhamadul Mountakha Mountakha Mbacke Basirou. ñu ngi koy ñaanal baax tawfeex ak mu yàgg fi loolu daan dëkk wér noonu la ñu koy ñaanal sëriñ Modou Amdi Menda Fall. alif général day Baye Fall. Mm-hmm. di fi di ko ñaanal ki nga xamante ni moo yor liggéey bi. Mm-hmm. di sëriñ Ahmadou mbake moom sëriñ Cheikh. moom sëriñ Saliou. ñu ngi koy ñaanal baax tawfeex ak taysiir mu yàgg fi lool tànd ak wér ba ànd ak moom liggéey bi li nga xamante ne loolu la si bëgg na si namm rek ñu dafa nekk ak moom barke Serigne Saliou mhm. ah ginnaaw ba di leen nuyoo di leen jaar ñun nag ñu nongol nongolu xeebu bu bu bu bu bu tekkiwul dara daal nañu ñun ñu naan ko baaba ñu koy dippee sëñ baaba maraaxib mhm. ñu leen di jaar di leen jox seen wàccu waay ñun ñu ngi bawoo Dakar géejawaay mhm. ànd ak sunu jëwriñ Ndiasse Sow mi nga xamante ne daanaka moom liggéey bi chaque at moom la ñuy àndal fii xamee ba léegi daanaka ñun 2017 ba léegi nañ fi tàmbalee ñëw waaye ba ñu ngi ànd ak mbokku taalibe yoo xamante xamante ni li si mel ne waa Pikine ñetti mbaar tamit nga xamante ne ñoom it ay jàmbaar nañ si ñoo ak ñoom ñoo ñoo seek ñoo seek li nga xamante mooy liggéey bi saa ne moo tax liggéey bi nag saa ñëwee mbokku taalibe ñoom ñëpp dañ siy jaayante andi si fondation bi nag lu ko taxawal ak yéenal ak jaayante rek daanaka ndawi Eh, ndawi Xelkom nañ ko tuddee fondation bi parce que li li si jiitu mooy yéene bi nga xamante ne ak yéenu mande bi nga xamante ne moom la Serigne Saliou am bëgg ñu see séddu ñun ñëpp moo tax ñu koy jaayante saa su ne daanaka ñu si nekk ñu si bëri ay ndaw nañ ñii am nañ borom kër ñii ñii am nañ ay soxna ñii dañuy jàng ñii dañuy liggéey waaye daanaka bis bi Xelcom bi teewee saa su nekk rek ñoom ñëpp dañuy jaayante ñëw li nga xamante ne moo si liggéey bi mhm. waaw waaw ah, loolu am na solo waaye gis nañ ni mu takk ngeen yor ndax euh, t-shirt yi nga xamante ni moom ngeen sol ne laa koy gis jamono ji fi ma taxawee nii loolu naka ngeen ko doxalee ba toll fi ngeen toll ci wàllum organisation waaw loolu moom dañ ciy sant sëriñ bi rek te xamante ne ñun du suñu doole du suñu mënin fii lu fi waaye mën a am lu ne sëriñ bi rek moo ñuy dimbali daanaka gis nga mbokku taalibe yi ba nii ñëw daanaka ay 5 nañu woon 6 waaye la sëriñ Saliou doon wax rek su ma leeree ni murid yëpp dem nañu wuyu ji xel ko ma bàyyi ka woote ndax am na ñoo xamante ni ndeysaan dañoo judd seeni waajur bañ fi nekkee suñoo dem xel kom dañ si daan dégg rek nañ si daan am ba si ñun ñii rek nañ si daan am waaye bëgg beeg yéene bi nga xamante ne am nañ ko si Serigne Saliou moo tax ñu ñëw fondation bi nag kese di moom daanaka ren ji sax nañ ko def daanaka booy ñoo xamante ni dañ ko doon dégg daaw ñu koy wax ñu leen incha allah dinañ moo tax jógee fu ne ngi dëkk waaye ñii ñi si bëri nag Pikine nañ dëkk Pikine ñoo ko ànd saa su booy xool mbooloo mi chaque at bu ñuy ñëw macha allah doon naan liggéey Serigne bi amul tànk ginnaaw sa kanam nag la jëm daanaka ndaxte mooy lu Cheikh Ibra doon wax naan nañu nañu jàpp si liggéey Serigne buñ si jàppee day dox si jàppul day dox te nañ si bi daanaka si loolu rek nañ moo tax saa su ne rek mbooloo mi macha allah day gën a waaye mbirum sëriñ bi moo demee noonu ndax ñun ñëpp sëriñ Saliou lañuy dund moom nañ jamonoon deel ñun moom nañu xam waaw moom li mu si xelkom bi rek doy na preuve sama pëndum xelkom bi képp ku mu dugg sa ram na safara daanaka loolu kese kese moo ñu si dugal te fondation bi sax am ngi si wàñ bi am ngi si daanaka loolu sax ñu ngi ciy tuubalaat yeneen mbokk taalibe yi nga xamante ñu ngi si fondation bi te amuñu ko waaye mooy lu ñuy wax rek mbir mi moom di si solo bi waaye am mbir mi xool mi la bëgg bi bi xidmatin aw bi xubbin aw xëdiyatu xubbin boobu bëgg bi ñun moo ñu si dugal leneen li si yëpp daanaka dañ koy jaayante rek ndax ndimbalu sëriñ bi la fii ñun mënuñu fi dara lii ñu si def defuñu si dara lépp sëriñ bi daanaka bañ koy tàmbali sulu sulu sulu yées nañ ko tàmbalee waaye daanaka ñi dem ba nga xamante ni sax tarkaala macha allah loolu nañuy ñaan dañuy ñaan yàlla mu jëm ci kanam a kanam a ba nga xamante ni daanaka bu ñu demee dinañ am lépp loo xamante ne ñoo koy defal nekk béy rek ci ci ci maraaxib <laughs> urjuuzatan haabidatan lillaahi mahal kitaabi wa rasulallaahi samaytuha jaalibatal maraaxibi fii aajilil kahaajilil liraaxibi urjuuzatan haabidatan lillaahi mahal kitaabi wa rasulallaahi samaytuha jaalibatal maraaxibi fi ajilil ka hajilil li raxibi xadim saraftu lil muraadi xaa ila maha safain ba itan aw xaa ila inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabii ya ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman labbayka rabbi wa saxdayka wal xayru kulluhu bi yadayka xabduka raaji bayna yadayka musalliyan musalliman ala akramil xalqi ladayka xaailan yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa hibbana barke borom Tuuba barke maam Cheikh Ibrahima Fall macha allah am na solo jërëjëfati Serigne Saliou Mbacke gis ngeen li nga xamante ni waxam ja daal eh, suñ borom nangu na ko ndax moo woon jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom la suñ bamb defoon ci mag ñi donc yaayu ma la ci ndax eh, ay xasida moom ci mag ñi lañ ko gën a tàmm ñu koy def waaye jamonoy Serigne gis ay gone yu ndaw macha allah di yëkkati xasida macha allah jaari batul la doon yëkkati noonu dañuy ñaan rek barke bi tas ci ñun ñëpp képp koo xamante te nga sa tànk xel comme bëggoon a te ñëwoo yàlla na la barke bi dal waaye boo ñu abaloon benn soxna it ñu weccoog moom quelque kàddu rek ci ñoom donc euh, bala ñoo yëkkati li nga xamante moom mooy jotaay bi dina ci euh, am solo comme ni ngeen ko gisee rek ñu ngi toog ak euh, jëwrinu soxna yi toujours nuyoo ak yéen daal di présenté wu soxna si maa ngi lay ziar. jëloo ziar bi di nuyu ñi fi teew ñëpp xelkom bi di nuyu waa ndaw xel ko yi tamit ak suñu jëwrin baaba di nuyu ñëpp di santati sëriñ Saliou di waxati jërëjëfati sëriñ Saliou jërëjëfati sëriñ Saliou. di ko santati bu baax a baax. yow tur bi naka la. man la soxna Ndéla Gaye. Mhm. soxna Ndéla dégg naa ñu ni yow bokk nga ci njëkk a teew ci li nga xamante ni moom mooy fondation bi d'où l'idée est fan la idée pour ngeen daal di moom Serigne Saliou mooy tàggat ay ndawam ndax dañoo juddu ci ak murit yaakaar na juddu ci fekk suñuy waajur nekk ci même boo ci nekkul sax Serigne Saliou moo lay tàggatal boppam bala ngay judd ci say ñaari waajur la Serigne Saliou tàggat na boppam da gis ndaw ñi fi teew ñëpp ñii ay njaago lañ ñii ay benn xeet bu nekk fi tase ñëpp bëggandoo Serigne Saliou ñoo am idée bu rafet toog ca année ñooy àndandoo xelkom ñu ne pourquoi pas ñu war a def benn kuréel goo xam ne tudde ko ndaw xelkom yi di liggéeyee Serigne Saliou foofu la idée bi jógee ak jëw soon jëwrin bi jëwrin baaba ak jëwrin papa Ndoy ñoom ñoo ko génne jëw idée boobu ba ñu ànd ci nag mu rafet lool te di ko santee tamit Serigne Saliou parce que lépp moom la waaw. budget yëpp ñaata la toll ci wàllum organisation xelkom ah, nag wax dëgg yàlla wax dëgg bari na ko xayma parce que. xel kom moom da ngay liggéey rek ndax Serigne Saali moom looy gën di avancer rek mu gën di ànd ak yow waaw boo ci defee sa ñaar dërëm mu fekk la ceeg téeméeram yow du foog na yow du yow yaay def de même moom moo lay def di la buuxal boppam mm-hmm. waaw moo tax ñun nawuñu ci benn yoon liñ ciy def xeebuñu ko tamit mais nawuñu ko mm-hmm. parce que ñu ci def rek dañuy ñaan yàlla Serigne Saali yokkal ñu ko ñu fulal ñu ko ñu koy gën di mun a di ñaan yàlla daal mu ñuy ñuy jognd ba koy gaareel ay biis di invité ndaw yëpp ñuy ñëw. mais gis nañ ni yow soxna nga. bàyyi sa lal bàyyi sa kër ak lal bi ni mu neexee ak yooyu noonu nga ñëw fii nga xamante ni moom mooy Xelcom daanaka doo fi sax gis kër àllu kase la nga ñëw fi ngir jaayante loolu naka la lay def. ay ah, la wax sànq rek mooy ñun xamuñu Serigne Saliou moo yëkk ci suñuy xol sëriñ Saliou la xamuñu sax émission bi lépp Serigne Saliou lépp Serigne Saliou la wax moo ñu nee ba nga juddoogul la lay tàggatal boppam. sëriñ Saliou la lépp sëriñ Saliou la moo ñu jiitu ci suñuy xol tax na ñun bëggatuñ leen daal nekkuñ ci ay xawaare ay ngénte wala dala lépp suñuy lépp Serigne Saliou fu Serigne Saliou nekku nekkuñu foofu ñu ngi topp xasida yi ak lépp sëriñ Saliou daal Serigne Saliou daal moo jiitu suñuy xol moo ñu defar daal. ban année doon nga ñu mën nettali sa diggante ak Serigne Saliou. sama diggante ak Serigne Saliou ah wax yàlla maa ngi fàttaliku bi ñu gënee am nekk xale daayira bi njëkk sa ñun ay ba ñu ngi am 7 bi ñuy dem amuñu woon sax 5000 bu mat bi ñuy dem mais bi ñuy ne dañuy dañuy jàpp bis ne dañuy dem siyaare ci Serigne Saliou xéewal yi ni mu ñëwee yëre yi ñu nuróole sax boobu amaguñ sax juróom-ñaari at yëre yi ñu nuróole sax dañoo jékki-jékki ñu indi ñawal ñu ko indi ay yëre ñu dem ànd ak ay magi daayira yoo xam ne ñoo xam ne dañoo àndandoo ak ñun dañ na tëll rek suñu benn jàngkat di jàng ba mu ngi nekk xale jëwriñ bi daal koy arrêté na ko noppee Serigne Saliou nekk bu bu noppee yow yow yaay génn daan ne mag ñi ñu àndaloon beneen daayira daan ne yéen toog leen ba ma dalal tuut tànk yi ba pare ñu toog mu génn defar ci soow soow soow piir da yëngalal ko boppam jox ñu ko naan waxtaan ak ñun ba pare kee di sox ne ca la bokkoon boobu lañ gën a nekk ay xale loolu luñ ko fàtte mukk ñun ñëpp sëriñ ba di yërmande yi ñu doon xool te kum ci ñi jàq am na lum lu mu la xoolee kum ci ne jàq am na lu mu la xoolee te loolu tamit ñu koy sant ñu ko koy santeete daal parce que moom moo jiitu ci suñuy xol moom moo fi nekk du keneen nag du leneen du du daray àdduna safatuñu suñu nee jàkk Serigne Saliou rek daray àdduna safatuñu ndax lépp moom mooy àdduna ci ñun ci boog ñun moom mooy suñu àdduna te dañoo defar ñun. macha allah ñu gis ni nag bàyyi na fi koo xamante ni maanaam tee na liggéey bi ci nam ko war a teewee muy Serigne Cheikh Salihou Mbacké ñu koy ñaanal yàlla euh, yokk ay fanam lool ba ñu ba ñu ba ñu ba ñu ànd ak moom ci li nga xamante ni moom mooy bileeb liggéey moom it nekkinam ak tooginam fii ci kàlla fëpp Serigne Salihou Mbacké loolu lan ngeen ci wax yéen tamit en tant que ay taalib. li ma ciy wax mooy wuute wuñu kooku a di ñoom ñaar amul différence kooku moo di kii demul loolu laa jëm kooku moo di kii amul différence Serigne Saliou mooy sëñ Cheikh Saliou Serigne Touba ni mu nekkee woon Serigne Saliou noonu la sëñ Serigne Saliou nekkee sëñ Cheikh Saliou kooku mooy ki kii. ndax moo dimbaliwaat ndaw ñi tegaat leen ci yoon soo xoolaatee xel xelkom bi xam ne génération ku juyee nga xam ne ka fi nekkoon jugu fi ba léegi. ki fi nekkoon jugu fi moo fi nekk ba léegi noonu la demee. macha allah soxna. Mandela n'est-ce pas. waaw sax Mandela Gaye jërëjëf jërëjëf amiin amiin amiin amiin amiin amiin kawe seen nekkee fexeel jariñ sa nga xamante ne moom nga bokk te yéen bu Serigne Saliou ni woon cëpp fii doo leen defaraat li nga xamante ne moom mooy seen ay toogaay macha allah yàlla na yàlla gën a dooleel kàttanan leen def seen xel mi la dul bëgg Serigne Saliou ak liggéeyal ko rek ndax loolu rek moo fi des ci àddina ñu ngi leen di jaajëfal bu baax baax a baax yéen tamit ñu ngi leen di sant bu baax di leen ñaanal yàlla yàlla leen leen Serigne Saliou taxawu bañ a jug ci seen i xol ñaanal ñëpp jàmm réew mi ñëpp ne yàlla defal ñëpp ñëpp jàmm ku fi ñëw indaale sa soxla bala ngaa àgg yàlla na la Serigne Saliou jiitu ci soxla boobu fajal la ko ci barki Serigne Saliou indil ndënd indi xalamit indil ma guitar basse ndax Serigne Saliou dinaa la waye ne lu ma mën a am lu ma mën a xam way sëriñ saali woo oh, moo ma ko gënal sëriñ saali woo oh, dinaa la waye ne ba tey ñu ngi ci liggéey bi nga xamante ni moom la ñuy def di eh, ren ci xelkom 2021 bi toog ak ay soxna yoo xam ne xam naa dañoo sonn yéen teel ngeen a jël pause nag trop donc euh, maa ngi leen di maa ngi lay char <laughs> coupé coupé. coupéel sëñ bi ku baax yaa may tooñ nag. non franchement nag mënu wax nag. si lan nga nekk. fan nga jógee ñëw fii. Kër Massar. Mhm. laa jógee ba fii. lan moo fi ah, ci liggéey sëñ Saliou bi rek taw féex la. moo tax ñu bàyyi lépp ñëw moom moo ñu lu nekk ndax tey jii keneen sañu ñoo ñu bàyyi suñu ay ay bu doon affaire caaxaan du ñu bàyyi suñu lal ak yëpp ñoo toog ci lii nii liggéey sëñ Saali bëgg ko te doyloo ko moo tax ñu jóge fu ñëw ba fii pour jàpp ci liggéey bi am taw féex waa loolu rek moo tax moo ko waral ah ci mën wax moom bëri na moom bàyyi ma tënk dara rek mooy que ni sëñ Saali moo ma defar waaw ndax lépp lu nekkoon ci man mooy lu ay xol wu dëgg lépp sëñ Saliou ko dindi ci man waaw loolu daal mun naa fa yam foofu noonu mais moom macha allah daal. tur bi <laughs> soxna Mariam Soda. soxna si <laughs> xam nga tey jii doo dem ci benn benn benn benn benn koy waxee sax waaye. doo dem ci benn tarixe ñu naan la soxnaa gi yonoon da ngay dem da ngay tànn soxna bi ndax cëral lu mbiri di am euh, ñu koy waxee sax waaye kii bu ñu am yar bi boo tudd soxna sax taalibe bu ñu am boo tudd soxna na leen lay wax donc du coup da ngay dem ba da ngay soxna bi nag moo tax kooku nag da ngay dugal soxna sa tur voilà moo gën a yiw daal voilà. beneen jëwriñ a ngi nii sama wet moom it euh, ñëw ci li nga xamante ni moom mooy liggéey bi jëwriñ maa ngi lay siyaar. waaw ñu lay nuyu bu baax di siyaar àdduna di jiital si nuyoo beeg siyaar bi Serigne Mountakha Bassir di ko ñaanal bu baax yàlla sàbbaram yàggal ko lool te wéral ko barki borom Touba. waaw ñun nag ñu ngi jugee yëmbal asek naa depuis démb leen fa jugee daal di teew fii si liggéey bi waaw. d'accord donc euh, yow lan nga ñu mën a wax tamit ci li nga xamante ne moom mooy édition Xelcom 2021 bi parce que bokk nga ci ñi nga xam ne teewee nañ ko. waaw Xelcom 2021 moom tawfeex ndax taw feex mënul weesu ki nga xam ne si mooy Serigne Mountakha Bassirou bokk na si ñi nga xam ne si ñoo ko soññee ren kon loolu taw feex la te fii dafa nekk loo xam ne si jariñukaay la ndax képp ku fi teew rek sëriñ bi bëgg na laa dimbali waaw fii képp ku fi teew rek Serigne bi bëgg na laa dimbali ndax Serigne Saliou daan na wax naan ku dund ba dee te ñëwul xel kom kooku képp ko jaaxal kon ñun sant nañ yàlla bu baax a baax a baax a baax bañ teewee fii waaw ndax kon sëriñ bi dimbali nañu. ah dimbalu sëriñ bi képp daal moo ñu fi indi waaw. Ah. li ma laaj soxna si sànq laa lay laaj sa diggante ak sëriñ Saliou ban anecdote nga ñu si mën a jox. waaw sëriñ Saliou moom day koo xam ne si li mu def suñu dafa rëy lool ndax ba nekkatu tànk ba léegi xamuñ ko moom ndax siyaare nañ ko 2005 siyaare ko 2006 2007 biñ koy war a siyaar samedi jiñ ko war a siyaar ajuma ji si la sëriñ Saliou nalaw kon ñun sëriñ Saliou mi ñu defar rëy na. buñ ko dee wax sax suñu xol day tooy maam sëñ Saliou day kenn daal waaw moom kenn la daal sëñ Saliou amul morom morooma dawul sax waaw moom li mu defal daal ak sëñ moo tax ñun suñu bëgg-bëgg gépp ñu jël suñu lépp dënmal ko ko waaw ndax moo li woon jox leen man ndaw ñi ma def sa ñoom la sëñ ma defoon sa mag ña kon képp kuy ndaw nga juddoo nga ñàkk a judd boo juddoo da ngay bëgg sëñ sëñ Saliou ñi nga xam ñi fekkewul jamonoom sax bu juddoo dañ koy bëgg ndax ñaanam ngaa nangu waaw. loolu am na solo waaye àll bi da ngay xool ba fa sa bët yam man loolu moom a gën a yéem mel ni ay doomu aadama rek bayuñu lii. waaw ay doomu aadama ñoo ko bay lii lépp ay doomu aadama ñoo ko bay ndax maam lépp sëñ Saliou la ndax tey jii bu doon keneen la lii doxam xam waaw bu doon keneen doo am lii kon sëñ Saliou képp laa gëm ne si àndoom moom moo mën a waaw ndax àll bu toll nii kenn xamul ñaata hectare la. waaw da ngay xool ba fu sa bët yam ngay dox ba fu say tànk mën a yam nga taxaw da ngay dox ba toog waaw kon lii ku du sëñ Saliou yaakaar naa ne mënoo am si ànd doo xam. waaw. si maa ngi lay ñu ngi delloo ziar bu baax. naka yitte yi. ñu ngi sant bu baax a baax. fan nga bawoo ñëw. Ah, Dakar laa bawoo Géejawaay. Ah. waaw donc ñu bëggoon a xam rek euh, sa say sentiment tey boo fekkee ñëw nga ci li nga xamante ni moom mooy Khelcom édition 2021 bi yan moom moo lay animé jamono ji may wax. o dëgg fa yàlla dañoo am mbégte bu baax a baax a baax ndax ñu ngi doog a teew fii ci Khelcom ndax yàgg nañoo bëgg a ñëw waaye tey la ko Serigne Saliou dogal. waaye wax dëgg fa neex yàlla mbégte mu yaatu lañ ci am mbégte mu yaatoo yaatu lañ ca am ndax ku ñëw fii ci liggéey bi xam ne ndeysaan àdduna du dara xoolal rek fii kenn xàmmeewu ku fi am ak ku amul ñëpp dañoo ñëw rek ngi liggéeyal Serigne Saliou waaye liñ fi liggéey rek yàlla nag ko sunu borom yàlla nañ sunu borom fay defal ñu fi képp koo xam ne am nga fi jàngoro sunu borom saafara ko ci barke Serigne Saliou. yow xel comme dégg nga ci amoon donc boo ñëwee tey gis àll bi ni mu mel. foo xool rek foo sa bët yem rek foofu la tool yi di yem donc euh, ngeen di liggéey ngir Serigne Saliou rek tax gisoo leen lal gisoo leen kër gisoo leen dara loolu aussi tamit naka la lay def. Ah, loolu day wane ni ndeysaan alal alal nekkul alal moo yor moo yor nit nit boo modeste lii daa jàngale wàllum modeste daal soo modeste rek di nga mën a nekk fépp ndax boo demee tey sa kër yi di nga fa gis ay lal ak yëpp mais fii boo fi ñëwee doo fi gis sax garab yi nga fiy gis bëriwul maanaam te dafa am naaj ak affaire yooyu mais soo nga mën a nekk daal ci jàmm daal ngay nekk sa xel day dal doo am benn souci doo am benn stress aljana la daal maanaam ci gàttal da ngay am da ngay kontaan daal waaw. Ah. est-ce que sa ñëw fii gënul tax nga gën a xam ni Serigne Saliou daal moromantewul ak kenn. billaay du morom du maas képp ku koy utal morom la nga maas da nga kaa xamut moo tax waaye ku ñëw fii xam nga ni Serigne Saliou kenn la amul maas billaay. xatul xatul buñ ko xatal. kii dafa yaatu lool ku mën a ñu way ko nde jar na ko kii bu xatoon man duma ci way kaneen du way ci moom kon ña jiitu woon jeexal ko nde way nañu ba tey ñu ànd ak yéen ci liggéey bi Xelcom édition 2021 ci mbàcc mi donc ñu fekkaat ay jëwriñ ci liggéey bi daanaka sax liggéey bi léegi mu mat ndax euh, gis ngeen naaf yi ni ko euh, ndaw ñi def macha allah mu doon liggéey bu am solo waaye mënuñoo dem ba jóge fi te duñ taataan ci ñoom ay kàddu ñu wax ñu ci li nga xamante ni noonu la liggéey bi demee fan la ñu jógee ak euh, naka la lan moo leen jaral li tax ñu bàyyi seen lépp ñëw fi nga xamante ni moom mooy ci xel ko yi ngir daal di jëfal ki nga xamante ni mooy Serigne Saliou Mbacké jëwrin maa ngi lay siyaar. delloo siyaar wér baay jëwrin. Mm-hmm. naka taw fee. sant nañ bu baax bi naka waaw sëñ Fallou Thiam la. Mhm. waa ndawi Serigne Saliou la waa ñun ñoo ngi jógee Sow. Mhm. benn karti bu ñuy wax kanada Canada Guédiawaye. Mhm. foofu lañ jógee waa dañoo ñëwoon nag barkeelu ci si liggéey bi. ngir ñun moom ay ndaw te dara ñoruñu lu dul liggéeyal Serigne Touba. jaarale ko ci Serigne Saliou mi nga xamante ni moom lañ tombeel jamono daal. ndax ñun moom Serigne Saliou mooy suñu lépp. moom lañ am fii moom lañ yaakaar fële it. te lu mu amut bëgguñu. Mhm. moo waral loolu ñu ñëwoon barkeelu ci. Mhm. ñun ak suñu jëwriñ yi yëpp. Mhm. waaw liggéey bi nag kontaan nañ ci trop ndax dëgg yàlla Baay yi teew nan soxna yi teew nañ liggéey bi yemb na. waaw macha allah xol yëpp sedd na. bi mooy ñaateelu yoon nga fi nga fi ñëw. waaw man de dëgg yàlla moom mun naa ne xel ko moom ba ma doonee tuut tànk ba tey maa ngi fiy ñëw. suñuy jëwriñ lañ daan àndal. boobu ñu doon ay tuut tànk di ñëw. ba yàlla di def tey jii it majeur nan ba mun a ñëwal suñu bopp. ba ànd ak maam mbooloo mu takku wax yàlla waar daal ba ñëpp nga fa. mbooloo mu takku leen àndal. ñaata fan yéen a ngi fi waaw ñun nag démb lañ fi ñëw démb ci ngoon lañ ñëw tey lañ tàmbali liggéey bi te gis nga ni mu demee mun nañ ne ñëpp ci jàpp. yéen ngeen def ci liggéey bu rafet macha allah ndax ñëpp a ngi leen di gis fépp. lépp ngi leer. ma leen di ñaanal nag ci dooley Serigne Saliou mi bokk. mi waral lii yëpp. yàlla na leen dégg fu gën a kawe fii. fi ñu dégg site yeeg télé yëpp yal leen fi dégg ci doole Serigne Saliou kontaan nañ trop macha allah. yow ren maa ngi lay ziar. ñu ngi delloo ziar bu baax a baax. Mbaye Thiam. Mhm. Mbaye yow it dafa mel ni ci ndaw yi Serigne Saliou yi. waaw si ndaw yi Serigne Saliou lañ bokk ñu jógee Pikine Guédiawaye Canada. Mhm. waaw ñëw si toolu Serigne Saliou yi barkeelu. c'est la première fois mu ñëw fi mais macha allah macha allah lépp Serigne Saliou la ñu ngi sant bu baax a baax ñaan yàlla. ay at ñu koy teewee ay at yu bëree bëree bëri si barki borom Touba. c'est la première fois nga ñëw fi mais dem bi nga njëkkee teg sa tànk fi nga xam mooy xel comme lan nga yëg. Euh, li ma sentir bëri na li ma sentir bëri na ma sentir bëri na franchement ñaan yàlla rek ñu koy fekkee ay at yu bëree bëri bëri at bu ñëw suñ borom mooy ñu kattan ba ñu mën fee ñëw incha allah waaw si barki borom Touba. sa diggante ak Serigne Saliou ndax mën nga ñu see ñëwal. sama diggante ak Serigne Saliou waaw Serigne Saliou daanaka euh, musuma ko gis ah, mais. dama rëcc dama rëcc lu tax mosuma koo gis waaye bu dee mu doon tey kenn du ma jiitu Serigne Saliou barke Serigne Bamba bu dee mu doon tey kenn du ma si jiitu billaahi ndax damaa gis dañoo xam ni da leen a defar ba nga xam ne nii mënuma koo wax sax waaw macha allah. liggéey bi nga xamante ni naal na ko fii ci xel Xelcom donc euh, te boobee ba tey liggéey bi di gën a avancé di gën a euh, jëm kanam ndax euh, bi nga ñëwee jàppoon nga ni ay nit rek ñoo bay lii nga xamante ni moom mooy hectares yi nekk fii Xelcom nga xam da ngay xool ba fa sa bët yam rek. hectares yi moom macha allah fo bari na trop trop trop trop trop mais nag lépp ay ay ndawam la rek ay ndawam ay ndawam macha allah ñu pasteefu waa bëgg sëriñ Saliou muy góor muy jigéen waaw macha allah ñëpp a si jàpp francement macha allah liggéey bi moom macha allah. am na solo yéen yàlla nañ yàlla taxaw yàlla fay leen ci liggéey bi nga xam moom ngeen di liggéeyal ku tedd ki ndax moom rek moo jar a ndax euh, vraiment nee na jëf ju nekk euh, xam na les say pay te du jaawale euh, jëfu kenn ak moroomam donc xam nga ni kooku kenn moom. ñu ñaan yàlla yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem te liggéey bii nga xam ne bàyyi na ko njaboot gi dooree ko si sëñ Cheikh Saliou Mbacké ak i rakkam yàlla taxawu leen yàlla kàttanal leen ba chaque année rek ñu koy gën a mën boo ñëwee xel kom da ngay sa xol bi day tooy daal ndax ay ndaw rek ay ndaw rek ñoo fi nekk. bàyyi seen lépp ngir liggéeyal Serigne Saliou Mbacké donc euh, loolu day ñëwaat rek ci wax ji nga xamante ne waxoon na ko jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom la sëñ Bamba defoon ci mag ñi donc yooyu ma ma barkeeloo ko donc loolu rek euh, tax na képp kuy ndaw rek war ngaa mën a ñëw fii nga fii ci Xelcom daal di liggéeyal ñaqal ki nga xam ne mooy Serigne Saliou nga xam ne jox nañu lépp mm-hmm. defal nañu lépp ndax du dem bañu mm-hmm. ku dul dem bala moom yaakaar naa ne ku ba jàpp kook nga war a njëkk a jàpp donc ñu ngi leen di jaajëfal yéen it bu baax a baax a baax yàlla yokku leen taxawu leen ci barkib Serigne Saliou jaa ngeen jëf toolam yu yaatu yi tarkaala macha allah mm-hmm. ñooy tuub nag bu wér laaj maanaam yow lu si dafa tax a ñëw ah sëriñ bi rek fasaale suñu soxla di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal ñi fi ñi fi jóge te xam ñoo daan bokk daan ànd fii ci tool di leen ñaanal fañ foofu noonu gënal leen fii fuuf di ñaanal suñu boppu jàmm di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal suñu boppu gudd fan ak wér ak yokkute waaw ñooy ñooy ñaan loolu bu wér. waaw damay laaj yow lan nga bokk ci fondation dama gis maanaam ci suba bi ni xëy si maanaam soxna yi bala yoo ñëw commencé génn il faut que soxna Fatou ñëw. ndeysaan loolu ab ab may la ndax ñun yàlla daal def ñun ñoo nekk si culturel bi. moo nekk wàllum alxuraan bi ak xasida mi ñun ñun foofu lañu bokk. di ko santee sëñ bi nag ndaxte bokk si benn affaire moom ñu jiital la yombul daal mm-hmm. moo tax ñu ngi ciy santee bu wér. naka nga gisee fondation bi ak doxalinam. fondation bi moom macha allah moom ndax yaatu na lool te liggéey bi tamit taw feexe na bu ñu ci duggee ba tey ah ma di sama bopp ak ñi ma xam ñëpp am nañ ci changement. parce que ñii ñoo ngi daan sol ay tubéy ñii daan def lii mais changement bi ma si am ba ma si bokkee ba tey dafa maa yéem ndaxte loo ma wax dem daayra liggéey laa xam toog suñ ko jàng xasida dugg ma si kenn aw ma soxla si kenn tarkaal daal. di ñaanal affaire bi gën a yokk di ñaanal Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Saliou Mbacke yàlla na fi yàgg lool te ànd ko weer sa diggante ak Serigne Saliou lan nga ñu ci mën a moo defar suñu àdduna moo dimbali nañu lool daal Serigne Saliou moom ay nañoo wax si moom dara yéeme na lool daal. sa cofeel ci moom naka la la duggee naka la la duggee ci yan anam. maanaam Serigne Saliou bala ngaa dem si il faut nga gis ko. dinga ko gis wala ngay doxale ay doxinam suñ saaliw suñ saaliw nekk min kenn la wallaahi lazim ñun waa Mbour moom nee naa ñun lañ am ab may la wallaahi mais lépp daal tawfeex la ñoo ngi koy sant Serigne Saliou daal di ñaan Serigne Cheikh Mbacke wu Serigne Saliou Mbacke yàlla na fi yàgg loolu tamit di sant suñu jëwriñ international Ibulaay di sant jëwriñ Seydou ñun waa zone Mbour moom lañ àndal moo ñu jiite di sant ñëpp nag. tarkaal la yéen tamit macha allah ñoo leen di ñaanal ak yokkute rek. Mm-hmm. surtout maa ñu jóge fii ba Mbour ñun waa fondation Soppey Serigne Saliou dëgg yàlla kontaan nañ trop am nañ mbégte ndax moom Serigne Saliou dañoo defar moom waaw ndax yoroon nañ ba neen jikko waaye bañ bokkee ci moom ba tey ji dañoo changé dematuñ fenn daayira ñibbisi liggéey moom la ñuy waxtaanee moom la doxee sunu li mënuñoo wax ba daaneel te tudd ñu Serigne Saliou barke yàlla ah ñu ñaanal sëñ Cheikh Mbacke yàlla na fi yàgg wér amin di xaar rek heure bu ndigal jugee rek ñu ànd ak sunu jëwriñ Seydou moo ñu jiite ak soxna Amina Saliou ñu leen di sant ñoom ñëpp ak zone yi ñu fi dajale yëpp wax dëgg yàlla kontaan nañ moom wax dëgg yàlla moom lii rek la ndigal di jariñ fekk na lu garaaw ndax temps yooyu fu sabar amaan rek man maa nga fa diw nekk daal ci mbiru àddina ci laa tëdd guddi gént Serigne Saliou nekk ak moom daanaka daal maa nekk bëkk néegam koy dem ci man lay jaar ci laa xëy nettali ko ñu ne ma dangay saraxe boobu ba léegi sama lépp Serigne Saliou la maa ngi doog a nag ñëw xel koom ci laa woo ma njaay ci expliqué ko mu ne ma dangay bokk ci fondation bi kontaan naa torop di sant daal instant bi sama xol ci boobu moo fees te lépp luñ fi coono giñ fi am rek tawféex bi yàlla na ko yàlla boole ñépp te tasaare ko daal ci àdduna lépp luñ fi sonn ci lu baax yàlla na ko yàlla tasaare ci àdduna bépp ñëpp bokk ko lu fi waay rek yàlla na ko yàlla may ci barkeb Serigne Saliou. dama yóbbu ci lu bari damay imaginer xam ne lii Serigne Touba rek mooy lépp mbirum Serigne Touba dafa yaatu yaatu bi ñu doon wax ci wàllum Serigne Touba maa ngi tey la may doog a leer kon Serigne Touba foo làmb rek Serigne Touba ngay gis man dama xool tey xam ne njaboot képp ku lu waa di dox rek doxoo ci wàllum Serigne Touba ak wàllum Serigne saaliw doxoo ci dara man man dama ne woon man dama réeroon a wàllum àdduna xaw ma ci woon dara biñ demee ba nekk ci xasida yi boo ko mënul sax ngay toog di xool xasida yi rek taw feex la. jërëjëf ah, bee fees rek murit moom nii rek la rek yal na saa borom doole taxawaay rek ci barke Cheikh Khadim. asalaamaaleykum wa rahmatulaahi taala wa barakaatu. waaw ah, nuyu nañ leen baax a baax di leen ziar wér-wér waaw ñun de ñi bokk ci fondation bi ñuy wax fondation Sopp Serigne Saliou. waaw ginnaaw bi ñu amee ndigal nag ci sëriñ Cheikh Saliou mu digaloon ñu ñu ñëw Xelkom loole moo ñu moo ñu jógale mbuur ba euh, moo jëlee mbuur ba Xelkom ngir joxe liggéey boobu noonu waaw dafa nekk fondation boo xam ne dafa ëmb ay zone yu bari waaw ñu la dañoo mel dañoo féetewoo ci zone mbuur waaw te Xelkom daal gis nañ maanaam dara desut dara desut liggéey lu liggéey sëñ kii sëñ Tuubaa muy muy liggéeyam bi waaw moom tax daal ñu jéem a joxe liggéey sëñ Cheikh bu baax waaw loolu la ñu fi indi bi lan nga ñu mën a wax ci fondation bi ak doxalinam ànd ko ki nga xam mooy jëwriñ Ibou Laye ñu koy nuyu au passage. waaw xanaa di rafet lu doxin bi rek parce que euh, diir bañ ko sosee yàgg na yàggut mën naa ne at lay tool waaye gis nañu màgg màgg màgg euh, ba képp koo gis rek mi ngi xem mi ngi mi ngi xeeñtu pour euh, pour bokk ci fondation bi te dara ñoruñu lu dara lu dul liggéey liggéeyal sëñ Saliou kese moom se ñor. waaw ah, di nuyuwaale suñu jëwriñ Ibrahima di ko santaale di ak suñu jëwriñ Mbour mi say jëwriñ Seydou ak bépp jëwriñ zone nga xam ne maanaam daal fondation bi nañ gën a nañ gën a yokk di gën a góor gën a góorgóorlu rek parce que ay jàmbaar lañ waaw euh, ñun daal amuñu leen li ñuy wax du kontaan. yéen waa Mbour sëriñ bi da leen a da beral loxo. Mhm. ndax ku xam sëriñ bi xam ko digganteem ak waa Mbour. Mhm. lool it lan lañ ci mën a wax yow comme que Mbour nga dëkk. waaw ku xam sëriñ Salim moom xam ko féetewoo ngi féetewoo rawatina sëriñ Cheikh Sall ñu koy ñaanal yàlla yàlla yàggal ko fi lool suñu kanam waaw ñu naa mbuur dama ne ne sëñ bi dañoo beral dañoo beral lox mën nañ ko wax sax parce que képp képp ku nekk mbuur rek xam na ci dara te rawatina fondation yi zone mbuur moom daanaka man nañ ne euh, zone bi yàggul de waaye euh, bokk nañ zone yi gën a jàmbaare parce que waaw foo limee Dakar lim Touba yaakaar naa mbuur nga ci teg hmm. waaw te dara mayuñu ko lu dul ak passeef rek ak nangu rek loolu daal lañ macha allah am na solo soxna si jige sil ñor ndax sëriñ bi maanaam soxna Anta wax na ko lépp loo xam ne rek dañ cee taxawoon sëñ bi moo ñu ci dindi bu baax a baax ñu koy santaat bu wér a wér di ñaan yàlla yàlla yokki leeram ci barke Cheikhul Khadim ñu ngi koy ñaan yàlla bu baax a baax liggéeyal sëñ bi kese moo ñu ñor moo ñu fi indi tamit waaw kàddu yi am na solo moom xol yëpp a fees rek koo laal moom ci sëñ bi def xolam day seet lool waaye nag lépp noonu nii la mën a mel kon nag laajoo soxna joo tam la sa xam sa xalaat jeex tàq ci moom xam ne tey ci ak fu mujj jamono tool ak fi jamono tool lépp lu waaye def lu dul jaamu yàlla liggéeyal sëriñ Tuubaa perte nga te seetlu nañ ni tool yi bu njëkk mag ñi fee ëpp mais waaye fu mu nekk ni ndaw yi rek nga fi gis ay tuut tànk yoo xam ne dara ñorule lu du liggéeyal sëriñ Saliou te loolu moom taw féex na di si sant sëriñ bi bu baax a baax a baax ci dimbali gi mu ñu dimbali waaw ak cant la daal ñu ngi sant bu baax waaw di ñaan sëriñ bi mu gën ñoo téewal boppam gën ñoo def ay dëggi-dëggi taalibe waaw boole ñu ci milliardaire bi ñu koy jëfal waaw incha allah mën nga ko yàlla ko def waaw waa wasaare di ñoom tamit ñaanal leen. waaw du waa wasaare di leen ñaanal suñu borom teg leen loxo ci barke Serigne Saliou Mbacke waaw. ginnaaw bi ñu doon nuyoo dañ lay bàyyi rek nga daal di nuyoo mbokk internet univers info ak waa wasaare ñu soog di dugg ci li nga xam moom mooy waxtaan wi. bismillahi rahmaani rahim barkeb Serigne Saliou Serigne Saliou Mbacke xaadim rasul jërëjëf. asbanallahu wa nixmal wakilu yàlla nañu yàlla musal ci lépp luy lore ak luy dogal barkeb Serigne yal nañ yàlla di bàyyi ak sunum xel ak sunu kàttan ba ñu mën a farlu gën a farlu ci liggéeyal Serigne Saliou ba faw barkeb Serigne Saliou di ñaan yàlla sunu borom bi Serigne Cheikh mu Serigne Saliou yàgg fi lool te ànd ak wér ndigalam di yàgg jóge ci moom di ñëw ci ñun di ko jëfee ba tase cee ngërëmam barkeb Serigne Saliou amiin jawrun Seydou ñu gis nga ànd ak gone yi ay ndaw dong jóge mbuur ñëw fi nga xamante ne moom mooy Xelcom édition 2021 d'abord euh, ban sentiment nga am boo àndee gone yi ñëw fi nga xam sant Serigne Saliou sant Serigne Saliou rek ndax mbooloo mu dey nii ay tout tànk yàlla sunu borom bi dogal nga jiite leen te du ci xam-xam du ci am-am du ci man-man du ci lenn ndimbalul sëriñ bila rek donte matewuñ ko donte mënuñu ko ndimbalal sëriñ bila la. leen ci liggéeyal sëriñ Saliou rek nàmpatal leen ci ba buñ ko déggatee seenu yaram di ko yëg buñ ko déggul seenu yaram di ko yëg te noonee lañu ñu àndee gis nga lii firnde la ci. liggéey liggéey bi jeex ñëpp di dem ñoom ñu taxaw di bégal seen bopp di sant sëriñ Saliou te tey jii mën leen noonu nañ dem du ñu dem ndax gis nañ seen bopp ci li ñuy def. macha allah ndax sant Serigne Saliou rek la ñu xam. Mhm. loolu am na solo macha allah waaye eh, mënuñoo toog ba jug te duñu waxtaan ci li nga xam moom mooy fondation Sopp Serigne Saliou Jëriñ Ibou laay jiite ko macha allah mu ciy liggéey moom it liggéey bu am solo ñu koy waale au passage ndax suñu mbokk taalibe la suñu frère la donc euh, fondation Serigne Saliou lan nga ñu si mën a wax aussi. alhamdulilahi rabil alamin ba nga ma laajee loolu euh, de passage damay nuyu sama jëwriñ sunu jëwriñ mu jëwriñ Ibou Laye di ko ñaanal yàlla sama borom bi yàlla kàttanal ko dooleel ko taxawu ko sàmm ko aar ko ba naal bu mu naal rek moom soxna Fatima mi jiite soxna yi ñu àggale ko seenu taayu bakkan te ànd ko ñun ñëpp muy ku mat njiit ku mën a jiital ak ay taalibe ku yàlla dimbali ci loolu ndax ndimbalu sunu borom li ndimbalu sëriñ bi la. fondation Sopp Sëriñ saali li ma la mën a ax ci gàttal ko mooy dañ cee gis sunu bopp ñun rawatina ñun waa Mbour li tax loolu. ñu dañoo dëkkoon ak sëriñ Saliou juróom fukki at ak ñett mu dëkk ko Mbour donte jiitu na suñu judd waaye bi ñuy yegsee ci àdduna suñuy ma suñuy wayjur dañu cee nàmptal ñu dund ak moom xam kuy sëriñ Saliou xam la mu def Mbour yàlla dogal ba ñu dal ci fondation sopp Serigne Saliou Mbacké kon ak cant la ñu ñëw di ci suñu bopp gis ci sunu bopp ba mu wér ndax ndaw ñi lu leen mën a jiital lu ne mooy la Serigne Saliou waxoon rek dinaa leen boole ci génn buum loolu moo indi lii tey ndax boo xoolee fi mu toll nii zone Mbour bi am na ñu jóge Ngeko am na ñu jóge Somone am na ñu jóge Ngaparou ñu jóge Jiwaalo Jifeer am na ñu jóge Kër Ball am na ñu jóge foo seet ci département bi am na ku fa jóge ñëw te loolu fondation bi rek ko man fondation bi rek moo ñu mën a dajale ci loolu bu doon fondation bi kenn ku ci nekk sa gox ngay nekk toog fa di liggéeyal Serigne Saliou waaye fondation bi dajale nañu ba ñun ñëpp ñu bokk ci li ñuy yëngu bokk ci li ñuy dox kon dañuy yàlla suñu borom bi fondation bi yàlla gën koo saxal gën ñoo jubale gën ñoo boole gën a boole suñuy xalaat ndax bu ñu demee ba amul sëñ bi wutul intermédiaire suñu digganteek moom nga xam ne ndigal yi ci moom lay jóge di wàcc ci fondation bi loolu ak cant la. waaw ziaru daaw jéeg sëriñ Cheikh Saliou moom ba ngeen demee ziare ji ko ci kàddoom yu njëkk a yëkkati dani waa xanaa yéen da ngeen a yëgul ni eh, ñaan gu nangu sonal borom loolu xanaa dangeen ngeen koo gisul si yéen mu doonoon kàddu maanaam daanaloon na mbokku taalibe yëpp loolu it lan nga ñu ci mën wax. aussi firnde gi laa lay jox ziar bu njëkk ba ñu ñëwee dafa yëkkati genn ndigal jox ñu ko nañu ngeen saxoo jàng alxuraan di barkeelu ci xas day leen ci man dayul ñu sax ci loolu biñ ñëwee won ko firnde gi mën nañu ci la ñu ne xanaa seen ñaan gu nangu gi den koo yëgul ren lim ñu wax mooy tëj wax ja. Serigne Saliou li mu doon sàkku ci ndaw ñi yéen ñii firnde ngeen ci te fondation biñ ko sosee moo njëkk a jël alalam ñaar fukki junni lu ma teewee laay wax ne def leen ko seen kees keroog la baatin dugg ci ci fondation bi. fondation bi ci lépp lu ñuy dox du man du jëruñ Ibulaay du kenn baatin bu Serigne Cheikh def ci fondation bi la Ibulaay mi ko jiite moom xam na loolu keneen ku ci bokkit na dugal nañ loolu sa nopp ba nga xam ne fondation bi Serigne Cheikh moo ko téyel boppam moo koy doxalal boppam te wax na ko ren jii bu dee yaa nga foon nee na li ma leen di sant di leen ko gërëmee mooy bi ngeen jokkoo ci man ba léegi teggiwu leen ci sama ndigal te ku xam Serigne Cheikh xam ne la ma Serigne Mbaye Diop waxoon yàlla na yàlla yokk leeram ne ma sëñ Cheikh ba mu ba mu ganee àdduna ba léegi ci ndigal mos ta wàcc ci ndigal la ñuy tere fa mu nekk mosu faa mosu koo xool gëstu ko sax di ko xool te daa juboo way juróom mu góor jubóog maamam Serigne maamam Serigne Touba. mu ne bu leen toog a teeg moom de ko ne li ñu li lii lay ñaan dañ koy jël si ndax mu ngi ci yow. kon ku mel noonu bu lay joxi ndigal nga di ko jëfe ne la wér na ak tawféex ngir nga ciy dajal mënuñu amuñu faw ñu nangu ko ñun ñëpp ñi bokk ci fondation bi yëpp du kenn ku ci mën a fas xànc ak morom ma barki Serigne Saliou Serigne bi rek mooy def du kenn ci moom. sëñ bi rek kay def sëñ seex a ci ne moo koy doxal dañ cee topp rek di dem di ci taw feexul rek barki sëriñ Saliou. waaw jaajëf jëri am na sëñ Seex rek la du kenn ci ñun barki sëriñ Saliou Mbacke ku yaakaar ne yaay doxal fondation bi nag na sa bopp sëñ Seex la moo ñu taw feexal ñun dañ ciy gis suñu bopp ci liggéeyal ko dañu yàkkamti ndigal léew ba ñu mën cee dox ndax du ñun daf ñoo bëgg dimbali duñ ko andilee addiye mu jël addiye ko ne fi may dugal sama alalu bopp fa koy dugal ci liggéeyu sëriñ bi loolu doy na ñun dañ ko war a liggéeyal ba faatu fecc ko du ñun du ci kenn sëriñ bi rek a fi nekk du ci kenn ci ñun barke sëriñ Saliou waaw ah, jërëjëf dañu say dox te ñoo ngi nii man di ci way te bu ma jeexalee ba keneen di way ci moom yàlla na xol bi nangu nang ma defal man su boobaa ci nag ca ña lay jàppaleel sa waykat ya ngir ñu dem jërëjëf. mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax donc comme ni ngeen ko gisee ñu ngi ci toolu xel Xelcom yi édition 2021 di wër ci dal yi donc jóge nañu si waa fondation Sopp Serigne Saliou ci wet gi rek benn ndaanaan nekk fi dal fi ñu doxantu pour chercher ko muy Tawfekh Mbaye moom Serigne Saliou Mbacké donc dañ koy bàyyi mu nuyoog yéen mbokk internet univers info ak wasaare ñu soog di dugg ci waxtaan bi Tawfekh maa ngi lay asalaamaaleykum jërëjëfaat Serigne Saliou Mbacké Gallo maa ngi lay fay di la nuyu yow itam di la bëggee di ñaanal Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké mu yàgg fi loolu te di ñaanal sunu sang ba Serigne Saliou ndigal cuun moom mu gën fa yàgg te wér di ñaanal sunu sang bu tedd ba Serigne Mbecc jàmm Serigne Saliou mi nga xam ne bu nu amee ci Serigne Saliou lii lépp mooma ñu ngi koy ñaanal suñu borom yokk ay leeram te ma dem ci noonu. ci barkeb Serigne Saliou. loolu am na solo donc ñu gis organisation bi nga xamante ni def ngeen ko ci édition 2021 bi si mbàccum gerte bi donc je vois que ni avancement am na donc naka ngeen préparé li nga xamante ne moom mooy mbàcc mi ren. waaw loolu maa ngi ci santaat Serigne saaliw cant gu wér ndax ku fi ñëw xam ni xam ni xam ni xam ni yokkute am na. di ñaanal lépp lu ñu mënoon ren ji bu déwénee yàlla nañ mën lu ko ëpp waaye ku fi ñëw daaw. ñëw fi ren di nga xam ne yokkute am waaw di nga xam ne yokkute gu wér am na ndax daaw bu may ñëw man maa ànd ak sama rak Serigne Saliou xéewal sama oto ren nag ànd naag lu tollook ñaari oto yu mag ak ñaari ndaw te wér na ma ni ay bis la ñuy mbooloo mi yëpp wax dëgg fa yàlla ñun la ñu àndal ànd ñun liggéey bi ci Serigne Saliou tax yokkute mënta weesu lool waaw. Ah. gis nañ ni ah, defar nga ay t-shirt pour sa soppe yeet comme ça ku ñëw ci euh, dal bi rek war a mën a xamee ni fii nii la Tawfekh Mbaye daal loolu it aussi naka la demee organisation bi. waa ni mu demee mooy bëgg yëfi organisé wu kon ñëpp fi daje ak ku nekk fa nga jóge tamit day mat bu ngeen àndee doon ay mbooloo ngeen am mandarga moo xam ne mooy wane ni mbooloo mii kat fii lañ nekk waaye teewul nag ñi nga xam ne samay mbokk taalibe lañ te ñëw. ñoo ñëpp ndax gis nga waa génération Serigne Saliou boo ñëwee da ngay jàpp ne ñoom ñoo fi dal waa euh, fondation Serigne Saliou da ngay jàpp ne ñoo fi dal ak ñi nga xam ne ñëpp ay ndaw lañ di ay saalihaat bëgg Serigne Saliou ñëpp ngi fi teew waaye loolu sama soppe yu baax yi ñoo ko def di waa cin pëseef defar luy tiset dajalay koppar baas yi nga fay gis xayma yi bernde yi lépp ñoo ma ànd ak man ci liggéey bi ndax dañuy waajal yeneen i liggéey yu ñu war a bi incha allahu rabbi waaw loolu am na solo waaye boo ñëwee ci àll bi nga xamante ni sëriñ bi moom moo ko fàqal boppam woo ci ndaw ñu ñu siy liggéey yow nga ñëw fii di ndaw fekk fi ay yeneeni i ndaw it ñuy liggéeyal sëriñ bi loolu naka la lay def. waaw ni may def mooy damay fàttali rek bi ma bi ma tollee ni donga yi ndax daara ji di daaru xudóos woon def naa fi juróomi at eh, nii donga yi def ci dali noonu laa daan def bu dali Musaa ñoo may dem di wuti yére wuti mbiskit wuti meew wuti suukar comme nii ñuy def rek bu ma ñëwee nag damay damay damay am yëg yëg maam la ma daan dund nga xam ni dundu mu ko woon ci naqar ci bànneex laa ko daan dund. Mm-hmm. ndax da doon nduru dund gu tumuraanke te neexoon ci ñun ndax Serigne Saliou mm-hmm. ndax Serigne Saliou moom mooy def dongam noo xam ni maanaam yow mi nekk fi am sa benn tiset ak sa benn kilot ak sa benn kawas moo lay gënal kanefe yore jas neeram yow sa sa bopp lay gënal lool loolu Serigne Saliou moo ko def ci ndongam noonu lañ ko daan dundee moo tax bu ma ñëwee ngoon gi boo ñëwoon fii doo fi xaj ndax ndongo yi sax ngoon fi la ñëw toog waxtaan ñuy waxtaan man ak ñoom mun naa ne ñooy samay moroom ñooy ñooy ñooy samay xarit ñooy samay lépp may santaat Serigne Saliou bu baax ci nekk ñu fi nekk ba jóge fi mën fee dellusiwaat te duñ gis suñu benn moromu dongo di sëgg baa di rus ndax kuñ ci gis fierté ci ñun fierté ci ñoom loolu nag sante wuñ ko kuddul Serigne Saliou ak jàmmam ba Serigne Béthio ndax lu nu am ci Serigne Saliou rek damay wax ni moom moo tax waaw damay wax ne bu nu amee njariñ ci Serigne Saliou suñu béccoo tax waaw. waaw ngaa rek waaye mag bëgg naa ñu ñëw tuuti si sa si sa carrière parce que gisaguñ taw feex woote lu ni euh, Sorano wala Grand wala yenn événement yu mag yi lan xaar ci loolu. waaw galo loolu maa ngi koy waajal dama ni woon kon xel comme daa jub si ñuy ay taalibe di ay murit duma ma jël wooteeb sëriñ Saliou bi di teg benn woote ci kanamam waaye jàpp naa dat Sorano ci mois de février bi. incha allahu rabi mois de février du sori ci biir ci biir weer wi maa ngi koy yëgal ñëpp ni leen Tawfekh Mbaye Sorano mois de février bi na ko ñëpp waajal rawatina yow nag Gallo maa ngi la koy yëgal sa yëgalu bopp ndax yow da ngay kenn ci ñun ñii di way Serigne Saliou bu ma ko waxee nag li tax mooy aw askan mag ñi dañoo wax ne boo ci teralee kenn teral nga ñëpp wax dëgg fa yàlla te gis nañ liggéey bi nga ciy liggéey ak sunu mag yi ci nekk. loolu nag euh, day mel ni ñun ñi nga ko defal ndax sëriñ Saliou damay wax ni billaay waroon na maa mën a way ba way la li ma bëgg way kon kooku ñi ma ciy jàppale di ma wayal sama turandoo di ma wayal sama sang ba Serigne Saliou ñooñu man mii lañ koy defal moo tax lu leen waay defal rek mën nga ko defal ba tax na ñu ngi la ko yëgal yow itam di ko yëgal senegal gépp di leen wax nañu waajal Tawfekh Mbaye Sorano février incha allah. incha allah incha ci yegg ak jàmm yàlla def ci succès bu am solo waaye bëgg naa nga yëkkati quelques bayit rek bala ñoo bala ñoo bala ñoo wàcce jotaay bi ñu barkeeloo ko ci Serigne Saliou Mbacké. incha allah. ay waay ni man bu ma doon oto. Touba laay miite sama matricule mooy jërëjëf Serigne Saliou. ee ay waay man bu ma doon garab fa sëriñ saali woo lanu may jëmbët ndax ma dend ak xay ga ee ay waay man bu ma doon kafe fa kër sëriñ saali woo lan may defare ndax muridi naan cawaay ee ay waay man bu ma doon dugub nanu ma ji fa xel koom e, ma sax fa màgg fa ndax murid yi góob ko ee ay waayi su ma doon gerte it nanu ma ji fa xel koom ma sax fa màgg fa ndax murid yi bàcc ko ee ay waayi su ma doon gerte it nanu ji fa xel koom ma fa màgg fa ndax murid yi bàcc ko waay ku dégg rek sama way wi xam ni maa am cofeel ci sunub sëriñ sëriñ saaliwoo dinaa la waye ne indil nënd indi xalamit indil ma gitar baase ndax sëriñ saaliwoo dinaa la waye ne lu ma mën a am lu ma mën a xam way sëriñ saaliwoo moo ma ko gënal sëriñ saaliwoo dinaa la waye nu xatul xatul buñ ko xatal kii dafa lool ku mën a way kay ñu way ko jar na ko kii bu xatoon man duma ci way kaneen du way ci moom kon ña jiitu jeexal ko way nañu te ñoo ngi nii man di ci way te bu ma jeexalee ba keneen di way ci moom yàlla na xol bi nangu nag ma defal man su booba te nag ma boolewaat ca ña lay jàppaleel sa waykat ya ngir ñu dem jërëjëf tawfeex macha allah loolu am na solo ñu ngi lay jaajëfal di ñaan yàlla rek yàlla yokk xéewal yeeg teraanga yi lépp loolu fi liggéey yaag ñi nga àndal yàlla na ko suñu borom fël ci bàkk Serigne Saliou Mbacke jaajëf bég nañ bu baax jaajëf ba tey ci toolu xel xelkom yi édition 2021 ñu fekk fi ndaanaan fekk fi raqu ndaanaan muy maam Cheikh di raqu ndongolo ñëw ci fi nga xamante ne moom mooy liggéeyu Serigne Saliou bi dañ koy bàyyi mu nuyoo ak yéen bokk internet yi ñuy soog di waxtaan ak moom maam Cheikh ñu ngi lay siyaar. waaw ñu ngi leen di siyaar góor yàlla yi di leen siyaar di leen màggal di leen jox seen wàccuwaay di nuyu waa àdduna bépp ah, rawatina sunu mbokk taalibe yi taalibe Serigne Saliou yi xam ne moo indi fii si tool yi moo ñu fi dajale waaw di siyaar ñëpp waaw di bëgg si góor yàlla yëpp. Mm-hmm. maam Cheikh ñu gis la nga ñëw tey fii ci xel ko loolu yow sa teewaay te Xelkom lan moo ko lan moo la poussé aski nga def ko ak sa yëg-yëg boo fi teewee lan la. waa xanaa ñëw fu ma miin rek ndax fi moom daanaka moo ma gënal lépp gënal mu lu ma am ndax lu mu mënti am si àdduna Serigne Saliou ma ko gënal ba tax na bu ne dama leen soxla rek lépp lu mu mën a am dama ko fay bàyyi lu ma jàpp dama koy bàyyi ñëw wuyu si waaw. ndax li may tàqamtiku muy bànneex di ko yëg du ma ko yëgee fen amuma fu ma ko yëgee fudul si Serigne Saliou waaw bànneex si sëriñ Saliou laa ko yëgee kon su wootee ah, ñëpp fàq wuy si ko rawatina ndaw ñi kon damay bàyyi lépp lu ma jàpp ñëw fi ndax dafa jëf ji mu lu mooy sama liggéey te jëf ju ne xam naa nu mu toll te jëf ju ne xam naa lan mooy payam te du ma jaawale jëfi kenn ak moroomam xanaa di ñaan liñ fi jëf. yàlla na doon jëf ju sel ju sëriñ Saliou nangu ndax jëfit li muy rëy rëy ñu nangul la ko moo ko gën mu mu néew mu bari yàlla nu sëriñ Saliou nangul liñ fi jëf suñuy soxla suñuy mébét lépp li nga xam ñoo ngi koy sàkk nangu namm ko yàlla nu ko sëriñ Saliou si barkeb sëriñ Saliou waaye ñu gis la it nga nekk di yëngu ci li nga xamante ni moom mooy wàllum way donc est-ce que mën nañoo xaar benn euh, single wala dara loo xamante ni da nga koy jagleel dégg waaw ñun bu buñ sañoon lépp lu nu way du génn sëriñ Saliou waaye comme que danoo ne si beneen fànn waaw mun na toonu koy mbàkke waaw dañ koy jéem a sellal rek ba lépp di rafet waaw ba nga xam ni daal duñ si am leen loo xam ni rusel lay doon wala betteel waaw ndax Serigne bi euh, jagleel nu loolu tundurub nekk si joo di liggéey incha allah bu nu ñu ñibbee yàggatul dara si décembre bi am lu ñuy waajal di ko war ko génne di ko ñaan nag Serigne saaliw si soof Xelkom gi ñu nekk mu wër àdduna bi neex ñëpp waaw. ñu tëjee foofu rek. waaw ñuy ñuy comme li ñu wax rek comme moom moo ni foo leen toll rek maa leen fa toll lay soo bëggee ngeen wees ko ngeen wees ko ku yàqamte ku ragal ma jaaxal waaw ni bërët moom njëkkee ay xel mën ngaa mujjee ay dox waaye ni bërët njëkkee ay dox mën ngaa mujjee daw ñun fu ñu toll rek ñu jàpp ne sëriñ bi la. ndax yóbbu nañu fu suñuy morom demut ci way maanaam teg nañu si seen wi suñuy morom demut kon dañuy jël loolu remplacer ko lii sante ko Serigne xam ne lu am moom la le fait que ñu ngi am fan wu gudd ak xel maanaam li ne si ñun jugeegul si ñun ndax luñ doon la mu si ñun di suñu deret waaw. waaw yéen ñoo nekk jox na ma ay koppar ma ko fii jox na ma jëfam ma indil ko dongay Serigne Saliou hmm? waaw si daara yi kon. macha ma bëggoon nga loolu nit la rek loolu waxi nit la rek ma nit moom saa ne dégg naa lay wax waaye du gis naa wala fekke naa kon loolu du leer li leer mooy gis naa wala fekk naa wala wax nan ma looloo biir mais xam na xam naa yàlla xam na looloo am solo. ñu dara ñu fàttali ko ndongo. Ah, fii si tool yi la nekk. Serigne Saliou yi Seex Bamba. tay ji si xarnu bee te Cheikh Bamba moo yonent dëgg leen ko waajile jikkoom yaa ngi nii may lim dëggal leen te déglu ma la Cheikh Bamba doon way démb du moo del si tay jile jikkoom yaa ngi nii may lim dëggal leen te déglu ma la Cheikh Bamba doon way démb du moo del si tey jile ku la weesu naan Cheikh Bamba lay laa ci xarnu bee su dee nit la faj leen gaaw ne mooy maami dofile ee ku la weesu naan Cheikh Bamba laay see si xarnu bi su dee ni la faj gaaw ne mooy maami dofile lu ngeen ute yaa Cheikh Bamba man loolu xama ko li ma gis yow laa boole ak leen ma nettali Serigne Saliou mi waral li dajaloo bi si tool ñi fàkkandoo yëgandoo ko moom te ko ñu ngi koy ñaan moom mi waral daje bi yàlla na fa soxla yu ndaw yi lee waaw faa ñu ndax ni mu demee la démb léegi ñu ngi si tool yi fajar gi yeewu di yeete yow daal xamante nañu daal yéen kontaan naa